ñun nag soxna Seyna bu njegeen ku ne xam na ni xewut bërgi dem tey lam ñetti fan takku jàkka rek lay def bu doon xew di ay añ kon du man rek maay ñëw te man rek maa dikk mati càndugoo nga ca kër ga itam ñu baax ñëpp nga ca kër ga waaye man mi di taalibeem rek la ma ne comme yooyu sama taalibe nga mënoo toog demal nga yóbbu añ bi nga joxal ma ko sama goro yi rek ñu añ ndax kenn mënu leen a fay ki room buntu kër yëpp dugg sa kër kooku mënoo koo fay Basiir nag di xale bu baax bu yaru ndax seen bu njëgën benn bi jaaxalu ko bu ci amoon juróom sax du ko jaaxal ma sama maa ba mu ci amee benn te demul dikkul seen doom doon xale bu yaru ñoo dugg suñu kër jël maam Aïcha kon nabu nii rek la ma a def te nabu nii mu def nii da koo tàmm da koo bëgg foo ko fekk mi ngi togg foo ko fekk mi ngi yàqale kon du togg ca këram añ te ñamoo liñ ci du togg ca këram reer te ñamoo liñ ci loolu rek moo waral lii waaye lii du dara li ci kanam nag rawuli bët yaa noonu yàlla lafal cat mosul ñu seytaane ma ñu yeggale suñuy bëgg-bëgg suñuy yéene yàlla mën na ko yàlla na ko yaa def ci dara jeyante bi ndax seeni bu jigéen kum ni kum ni maa ngi xaar boo ko boo ñëwee di ko fekk jigéen maam as matt ma ca beleen ma dum borom kasaas saa paateeg dem ba yoro amul rek ñëw ca saalum jool fatim toob sëriñ ma nuru mi ci xalife gay baayam imaam as borom jigéen imaam yi imaam yey baayam sëñ Abdou Razak Njigéen lan uufal baayam bëgg dem boo njaate néeguñu koo suul ak taar ba sëñ Moustapha Njigéen lan yóbbu ca institut ba te néeguñu koo suul ak taaram baax xam-xam ba mu doon nit ko baax nag yàqul juddoom yàqul kër maamam di goro xalifa nag sëñ Corno jur ko di taawu sëñ Muntaxa waaye loolu lépp da koo jël rek njigéen maam aas ginde ko askan wi muy bëgg leen muy yërëm leen muy jàppale leen muy am yërmaan rek ci askan wi li ma ko nit bërki démb sa benn bii xamoon nga ne diñ ci kontaan ndax li ngay def ci jaamu yàlla yi faw yàlla fay la ko ba ma demee màkk su ma koy ñaar dama naan rek sëyna bu njëgee li mu sonn ci doomu aadama Njaay yàlla na ko yàlla rogalaata ci njabootam ci loolu rek laa ko doon ñaan ñaanul leneen ndax loolu rek bu ko yàlla fayee ci kattanu yàlla baax ba may dem ba may dem màkk ñaar la ma booleel rakkam ju mu bokkal ndey ak baay ak géwalam nday sekkan la ma booleel ñaari bee màkka la dagg boole maag moom ñu ma àndal ak ñoom ngeen dem màkka kon seen bu njëgën jàmm rek lay am yéen nag ngeen baax ndax nag wax dëgg yàlla ci dëkk bi ngeen dëkk waaye seen bu njëgën njëgën rek kon ne xam ne ni mooy borom kees bu ngeen meloon neneen suñu doom bu bëggee tamit du am waaye nit ñu baax ngeen adresse bu baax ngeen am koo ni famille alaawoo mu ni macha allah kon yal nañu yàlla lafal cat mosul ñu seytaane ba nu yeggalee suñu sago ci dara Yonent bi maa ngi lay ziar bu baax di la yóbbante ci sëy na bu nuyoo ndax moom it nit ku baax la li nga wax rek kenn mënu dara ndax maamam mooy suñuy sën di ko gërëm di ko ñaanal yàlla sëyu doomam bi yàlla na ci yàlla wasal barke yàlla nañ dund bay laa ngénte di gërëm nag su fi alaawoo mi ndax moom lu njig njaagate mooy njaag ndax moo tax mën ne fii tey Sophie du def dara te ñëwul ci man sama xarit la sama doomu ndey la sama kóllëre la lu muy def ni ma daba ay ca ba keroog ba ñuy waxtaani keroog la doon taw ndox mu bari fekk la ca màkka ñu dem waxtaan ak sëy na bu mu wax ñu wax ñu rafetalam ndox woon yëpp dara deñu ci ñu koy ñaanal yàlla sëyu doomam bi yàlla na ci yàlla wasal barke yàlla na dund bay làngaat fi moom na seen xel dal nit ku baax la billaay seen doom ji du ngeen ci lu leen naqari day jàpp te du bàyyi nit ku baax laa laawoo fari sa bés bi yàlla na la jikk jik sa rakk yii nag ndax ñoom it yàqunu dara waaw maa ngi leen di sant di leen gërëm. asalaamaaleykum wa rahmatulah suñu gërëm bi nuyu naa la di wax si waaye bienvenue di la wax kontaan nañu macha allah ndax lii teraanga la ñun yëpp waxuñu ko suuf waxuñu ko kenn ndax takku jàkka rek la ñuy wax ndax xam naa ne yéen itam seen mu njëgam bu fekkoon deful takku jàkka. ku ne xam nañ fii kenn du fi xaj ndax mu dugg suñu bii kër neex nañu ndax dërëm ak dërëm ñoo mën a ànd ndax njegéen njegéen ku ñu dugg si kër ku ñu dugg si Thiès doo leen dàq doo leen rejeté waaye dugg na fu ñu war a dugg ndax kii ku baax la mooy suñu taawu yaay moo ñu bot suñu yaay la ñoo bokk benn yaay macha allah mais suñu yaay la demul dikkul yarul na sëy na ba sëy dee ñun ci moom la ñuy bu ñuy sëy waaw ku baax la toog uuf doomi demul déppul dawul daayul macha allah moo tax ma ko lii dikkagul lii dara dikkagul lii téeñ bi démagul ndax da koo xaar kër Pape gii muñ ko fi macha allah. sëy ba sëy fa sëy nekkul mais noonu la mën a mel ndax ki ne mooy yaayam la fi moo ko jur moo ko jur doomu ndey la joor jóob samaam moo jóge woon jolof gàddaay dem dooyeen Kajoor ngir fa àjjuma càmm boobu boobu teel a càmm boobu sunu càmm boobu moom mooy seen yaay.

étage bu fa gis ñamam moo ko moom waaw ñu ñu ñu delluwaat ni alaawa fari mooy papaam fu baax la bokk dërëm ak dërëm rek ñoo mën a ànd Cheikh Bour Khayri ñi nga xam ne ñooy mooy sëtu Seydina Mohamed moo jur si si maamam mi jur euh, Kiné Fall Birahim Fall fa la soqi koo waaw fu baax la wax a seen mu njegéen dugg nag si baax te du am lu ko naqari sëyam bii li mu dugg suñu kër gi nag neex nañu trop ndax macha allah yal na yàlla defal cet ñu àggaleeg suñu sago mais bu ñu xawoon kon fii kenn du fi xaj. salaamaaleykum ñu dañuy koddali suñu kontante rek la ñuy féddali di wax nag ci suñu mag bii di suufi alaaw ndax dañoo waaj di ñëw yaayam yónnee ci moom ngërëm mooy taawam bu jigéen muy taaw boo xam ni bu doon feebar bay raam sax dina dem xool yaayam nu mu toogee. sàkku ma gu xëyee mu ngi sàkku si ñaan ci yaayam may ñëw léegi mu ne ma lii damaa bëgg ngeen waxal ma ko ba bënn bëtam di jooy ñu seede ko ñun ñi ay rakkam nekk ak yaayam su fi bëggul kenn mer bëggul ko am problème su fi boo amee problème ba ñëw ci moom sax danga koy fàtte dem ndax dina la kafal dina la reel xale lu mu tuuti tuuti mën na koo yendal ci àll kon alaawa fari lii téeñ la rek waaye yen bi ñëwagul góor baax na nag jigéen baax na ndam laa ngi ci kanam yàgg naa di la ko wax loo muñ ci seen kër papa ji rek bu soobee yàlla ak yenent bi dina la fi fekk baax nga yaatu nga bëgg nga mbokk ku bëgg jaambur ci mbedd mi xam nga ni sa mbokk safta wax yàlla na sa fan gudd nga fekke sa njariñu njaboot gii ñu bañ a séddale dara ci sa gannaaw loo sonn ci sa njaboot rek yàlla nga toog fekke lépp bànneexu ci ci kàttanu yàlla alaaw fari mënu ko woon bañ a wax te sa yaay moo yónnee ci yow ngërëm di la ñaanal dafa mënul a ñëw moo tax waaye bu mënoon a ñëw mooy ñëw toog waxal ko boppam ñun nii nag suñu mag la waaye moo ñu boot man dama naan ko doo mag yaay nga kon boo demee neel sëy na bu njëgeen li xale yi naan dal nga ci dal na ci ndax dal na ci këru muñkat dal na ci këru sëykat dan dal na ci këru nday jaboot dal na ci këru yaayu daara su fi lépp la way wëndeelu la kon nag jër jërëjëf sant yàlla. nuyu di leen ziare di leen ñaanal yàlla yal na leen yàlla may gudd fan bu ànd ak li ngeen fi def tey yal leen ko yàlla fayal ci daraja rasulilah sallallahu alayhi wa sallam na bu njëgeen sama lépp la na bu njëgeen sama doom la sama rakk la. kon boog yàlla mi am fay yàlla na ko fay bëggeel gi mu bëgg Bachir ak doom ji mu jël yéene ko Bachir may ko Bachir yàlla mi am fay yàlla na ko fay ci daraja Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam parce que nag bu buñ nga xamantee moo ñun ñii du tey yàgg na ñu bokk parti nekk fa mu nekk ci lu baax di def lu baax jëwu fa kenn waxu fa kenn loolu il faut ma wax ko nekk ci lu baax di def teranga te teranga ku koy def du wax kon boog yàlla mi am fay yàlla na ko fay mu ñëw encore encore bëgg ma respecté ma yal na ko yàlla bëgg yal na ko respecté yàlla respecté ci darajay maam Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam barke maamam du dëgg yaayam nelaw na papaam papaam awam bo papaam ñoo bëggoon toppatooñu def ñu ay jarbaatam kon boog yàlla mi fay yal na leen yàlla fay yal yàlla xare leen àjjana ci daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma bëgg wax ci moom yëpp wallaahi mun ma kaa wax ndax Seynabou Ndiéguène baax na amin yaru na incha allah Seynabou Ndiéguène bari billaay lii daal moom wane gis nga gis nga maama maam El Hadj Ndiéguène maam El Hadj dafa baax daf ñoo bëgg Bachir mii maam El Hadj Ndiéguène ñaanal maam El Hadj binet mii kii moo boot Bachir yóbbu ko mu feri maam El Hadj Ndiéguène feral ko bu mu ko fereelee feralee mu ne mu ne Binta mu ne ko naa mun ne ko sama sët bii mu ne ko naa mun ne ko samay sët lay àndal. <laughs> bilaay sans papa sans papa di Mohamed Bachir Alaw Fari bu mu ba mu jógee daw me ci ñoom la jubal dem nuyu leen waxtaan ak ñoom ni leen su may dund xam ne ne jullit laa su may génn àdduna xam naa ne xam ne ne jullit laa dem jébbali moom sama papa juddu rek ñoom loolu la ñu xam ñoom fi ñu jógee dafa sori fi ñu jógee dafa sori daawme ñoom ñoo ko yóbbu islam moom ak benn feeram ñoo yóbbu islam mi kon boog am na lépp loo xam ne di mun ñu koo détaillé mais nag maa leen di gërëm yéen di leen sant. sax dina leen tëyal seen doom na mu ko war a tëye yàlla na sëy bi am barke ci daraja Rasulullah ndax man mii di wax maa boot bas yóbbu ko ba ci maam Alaaji Njegen lam ma wax ne ma kii dina dina kii ba ñëwaat sama kër gi kon boog du fi yegsee rek alhamdulilahi rabbil alamin wax ji tënku na ñaanal nañu Seynabou Ndiéguène at Bachir at maman Aïcha yàlla na fi say bi am barke am njaboot bu bokk ci diine ci daraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw seen maam laa siyaara joon barki démb li mu wax rek laa li ma daaneel lim li ba nu yóbboo Bachir muy feri maam Alaaji Modou Ndiéguène da leen ne Bachir mii dina demaat ba duggaat sama kër ànd ak sama njaboot kon wax bi ferenkulaay maam Alaaji Modou Ndiéguène nag ay waxam du fanaan biti lu mu wax boo ko toppee sa fan guddee di ko gis bu neexee yàlla yonent bi moom lañ doon ñaanal démb moo fi jóge woon 14 août sët yi jooy taalibe yi jooy doom yi jooy dëkkandoo yi jooy ànd yi jooy barke yonent bi mattama ca beneen ma doon borom kasaas mujj sëñ Abdou Razak mujj sëñ bu Ndiéguène mu jur sëñ daam jegeen mu jur bu jegeen mu jur sëriñ si sa njegeen balom layatu xadar mu jur sëñ bu njegeen mu jur sëñ Moustapha njegeen man tante barki dem boo Njaay yóbbu ko ci ba mu jur bu njegeen maam ay sax nag ajol sëñ bu njegeen ay yaayam asu njegeen ay yaayam day xadee yaayam waaye nabu taayee yaayam macha allah tubaab fa kàlla ajaratu Elen Thiaw borom lamb bis ba jëkkër Alaaji Amat Baro daan togg ci mbana di yekk ci bool nag li naan doom loo napp loo napp ngay tàqamti ko nabu nii rek la mën a mel nii la yaayam daan def di ko dëndre di ko tegal maam Alaaji Moodu Njëgeen àjjuma jot moom la xam moom lay def. xam naa ni gaal gi ñëw gaal gi mu fekk si dara gi waaw dara dara ma mën a ànd waaw waaw waaye fu mu jëm kër Chérif la jëm ay dara borom gumba ñu ni saaya borom nim saar wala du Mohamad Fadal waaw waaw ñu ne la soo weex mel ni xorom ñu gëm ñu ne nu mooy xorom waaw waaw ñu defal ci biir ci li tabul xorom bu ñam bi sooful saadi boo Unyamdi sofro sadibo. Eh, eh, eh. daal di ñëw village bi mu fekk yal nañu yàlla lafal cat. te nu yeggalee sunu sago. baax na te yàlla na nu yegg daaloo ci defal bi. amiin amiin amiin ah Alaaji bi nuyu roy baax. Moussa ak ay baayam El Hadj Amadou mu ngi ci jumaayu mu ngi ci bu la neexee yàgg sama waajee ka yàgg gën nu yegg ci dee fàgg dee mun taxaa sa waajur ku nekk xam ne tubaarkal la diina ji fekk na mu jag waaye dolli na ko baayam yu baax ya ak magam yu baax ya tubaarkal la fa ñu tegoon seen tànk ak liñ fi bàyyi woon da koo yokk Cheikh Abdoulaat baayam la waaye magama ñoo bokk néegu ndey Serigne Saliou baayama waaye magama ñoo bokk néegu ndey Cheikh Abou Madiane mu ci pincum boppam ñu doomi Serigne Touba yi daan gane ji sëñ Mountakha Binta Jaxate tubarkalla macha allah Serigne Touba indi na ko lu jiitu lii tey xamoon na lii waaye yàlla na nga fi yàgg sëy na boo ngi lay sant nag sëy na boo ngi lay gërëm mi ngi lay ñaanal yàlla foo bëgg a àgg nga àgg fa xam nga lu tax tubarkalla macha ba mu duggee ci loxoy ku tedd ki muy maam Cerno koso tubarkalla macha allah yàqu leen ci dara maam Thierno di nit ku yiw ndànk lay wax ndànk lay dox jëfam rëy na tubarkalla waxam néew na te kat bëgg nit mooy lu mu nekk nga ànd caag moom. lii bu ko fekkoon kenn du ko ci jiitu xam nga lu tax lu sëy na bu ma a def bu dee gàmm kenn jiitu ko ca nag tànk bët mën naa xool lu mu gëmut waaye tànk lu mu dox dëgg la eh ànd na ak ñun ba kasaas. ñaan sunu boroom yàggal ko fi te wéral ko. sant bu baax di gërëm. nee na di sant bu baax ak di gërëm. sëriñ Bassirou mi nga xam ni tey moom lañu fi fekk. seex Muhammadul Bassir moom seex Muhammadul Muntaqa moom sëriñ Bassirou moom seexul Xaddim mi nga xam moom lañ fi fekk. mu teewal waa kër maam sëriñ Touba yëpp. nee na mu teew fi nag waaye teewaayam bi teewal fi mboolem njabootu sëriñ Touba gi yëpp. ko sant di ko gërëm. nee na di ko sant te di ko gërëm. sant yooyu ak ngërëm li sant gi ak ngërëm li itam. dañ koy teg ci cant di ko sëriñ Muniru sant léegi ca saal ba. di ko jël di ko teg ci kaw cantuk Cheikh Mamadou Muniru Njëgeen mi nga xam ni moo yëkkati kàddu cant léegi ca saal ba jëmee ko ci Cheikh Mamadou a nii. waaw ñëw euh, taxawal fii sagal fii ah, ki nga xam tamit mooy borom këru sëriñ mu ñëw taxaw fii ngir teew waaye nag wóotu fi ki nga xamante ni mooy sëriñ Koso moom sëriñ Mountakha nga xamante ni moom la yàlla dogal ñu dénk ko soxna Seynabou Ndiéguène mii tey. di wax alhamdulilah rabil aalamiin rek. sëriñ bi ne mi ngi dellu di waxaat ci kàddoom alhamdulilahi rabil aalamiin. li nga xam ni tamit moo tax ñu daje fi tey jii muy sëy bi yàlla na suñu ni tey ñu ñépp ba nu xëyee lañ ko waajal ba yàlla dogal tey ñu pas def pas pas pas bi nee na sëy bii. yàlla na bokk ci sëy yi yàlla barkeel. nee na te loolu itam Serigne Mounir wax na ko fa léegi. am nañ ci yaakaar bu baax it. am nañu yaakaar itam ci sëy bu yàlla dana ko def dana ci boole ci sëy yam barke. li fa daje tey jii ci doomi soxna ci leer. mbooleem tey jii ca saal ba la fa daje ci ay doomi soxna di ay doomi leer. am nañ ci yaakaar wax dëgg yàlla képp koo xamante ni yàlla dogal na am nga benn yëg-yëg wala benn gis-gis war ngaa xam ni loolu jataay boobu yaakaaru na lool te am nañ ci yaakaar. te nee na tey jii la teew ci mbooloo moomu gëj na teew ci jot saal boobu. yàlla na sëriñ bi ne kon yàlla na yàlla barkeel sëy bi. nee na ñu ci ndokkeel bu baax sunu jigéen sunu sër Adja Zeynab bu jigéen. sëriñ Mounir wax rek moo ci am. nee na li seriñ bi seere léegi ca saal ba rek moo ci am. sëriñ Abdou Razak Abdou Razak Njegen. nee sëriñ Abdou Razak Njegen. yal na yàlla yokk ay leeram. mook sëriñ Mounir ñoo bokk ndey ak baay. mook Cheikh Mamadou ñoo bokk ndey ak baay. xel dal na. nee na xel dal na. li sëriñ Mouniru seede léegi ci sëriñ Abdou muy sunu nee na li sëriñ Mouniru seere léegi ci sëriñ Abdou Razak mi nga xamante ni mooy seen wéjur. fexe na ba doon nitu yàlla laata muy génn àdduna sëriñ bi bokk na ca say seereem ya mu cee seere ci sëriñ Abdou Rassakh mooy sëriñ Abdou Rassakh laata muy génn àdduna fexe na ba bokk ci nitu yàlla yi avant muy génn àdduna sëriñ Muniru moo ko loolu sëriñ Muniru moo ko seere léegi ci wayjur soxna Seyni bu njëgën di sëriñ Abdou Rassakh kon xel dal na nee dal na ñu ñëwaat fii nag nee na ñëwaat fii nag ci tànki ci tànki ànd ànd ak ak sunu rak. ci cër bii nga xam ne. ci cër bii nga xamante ne bii. jox nga ko jox nga ko ko. jox ko waa Njëgëneen yëpp. nee na waaye cër bii du moom de waa Njëgëneen yëpp nga ko jox Adja Seynabou. rawatina nag njabootu Serigne Mounirou. nee na rawatina nag njabootu Cheikh Mamadou Mounirou Njëgën. Serigne Cissé wax Serigne Cissé wax na ko fa léegi. nee Serigne Cissé wax na ko fa léegi ca Saalba. cër boobu nee na cër boobu. ñun ñëpp nga ko defal. ñun ñëpp nga ko defal. kon yàlla na yàlla barkeel. kon nee yàlla barkeel amiin. ngaa gën a yaatal yi. nee na ngaa gën a yaatal cër yi. bu ñu bu ñu làqoo fii ci ginnaaw rek. nee na bu ñu làqoo fii ci ginnaaw rek. mu ne yaay sama yaay sama séddoo. mu ne yaay sama séddoo. kon yaatal gën naa yaatal. kon nee. Adja Seyni bu gën ngaa yaatal cër yi. bi nga jëlee sa cër. bi nga jëlee sa cër. jël sunu cër. jël sunu cër. yëpp jox ko Serigne Khalifa. yëpp nga boole ko nag jox ko nag am ju baax ju tedd ju yiw ju yaru ji muy Serigne Khalifa Ndiéguène. muy cër bu mu mérité. muy cër boo xamante ni nag daf ko mérité. ci sa ci taxawaayam. ci taxawaayam. sa diggante ak moom. sa diggante ak moom. ñu xam ci lu bëree nee na ñu xam ci lu bëri ah, lu bëree bëri. ci taxawaay mi. ci taxawaay bi it. rax ci dolli. mu rax ca dolli. Serigne Muniru. Serigne Muniru. mi mu nekkal. mi mu nekkal. Serigne xalifa Serigne Khalifa. wuutuñu fa ñun ñëpp. wuutu leen fa ñoom magam yépp ci Serigne Muniru. taxawaay taxawaay bu am solo. nee na taxaw taxawaay bu am solo moom Serigne Khalifa. loolu mérité na ko. nee na loolu tax war naa taxit mu mérito cër bi. yàlla na ko yàlla jàppale amin sëy bii nee na sëy bii am nañ ci yaakaar am nañ ci yaakaar bu baax yàlla na sunu borom yàlla na sunu borom def ci ay xéewal def ci ay xéewal ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kontaan nañ bu baax ah Cheikh Mamadou Fadal ne kontaan nañ bu baax sa taxawaay ne Adja Seyna bu njëgeen sa taxawaay ci kër gi ak sa taxawaay ci famille bi ci dëkk bi ci dëkk bi ñëpp sedd nañ ñëpp seere nañu ko. yàlla na suñu borom. yàlla na suñu borom. jàppale la la. gën la dolli. gën la dolli. ay fonction ay fonction yu rëy a rëy rëy. sa njaboot. yàlla na yàlla sàmm leen. yàlla na yàlla sàmm leen. yàlla na suñu borom dëgëral leen. yàlla na suñu borom leen. ba lépp loo ci bëgg rek. lépp loo ci bëgg rek. yàlla na ko suñu borom def. yàlla na ko suñu borom def. ci daraja Seydina ci daraja Seydina Muhammad. say mbokk yëpp. nee na say mbokk yëpp. ñoom ñëpp ñu toog. bu taxawaay bu taxawaay bi matul woon bu nu dañuy ñëw sargal rek dañuy ñëw sargal rek daal di dem daal di dem waaye say say say say say nee na say rak say mag say mag say tanta say tanta say bàjjan say bàjjan ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñoo nga nële toog ñoo nga nële toog Adja Seydou kon nee na kon sa taxawaay rafet sa taxawaay rafet na ñu ngi lay sant ñu ngi lay sant bu baax ñi ngay àndal nee na ñi ngay àndal liggéey di liggéey ci dëkk bi ci dëkk bi suñuy jigéen ñuy suñuy jigéen ñoo ngi nii toog ñoo ngi nii toog guddi ak bëccëg guddi ak bëccëg ñu nekk ak yow ci waar yal na yàlla jàppale la ànd bi yal na ko yàlla yàggal amin ne du ñu guddal ay kàddu nag loolu rek lañ ci doon seere di ndokkelaat xalifa ndokkelaat seexul xalifa di la ndokkeel di la ndokkeel ci sey bi ci sëy bi cër yu mag yi cër yu mag yi ñu ngi ci joxe ñu ci joxe sant nañ bu baax ne sëriñ bi ne sant nañ bu baax gërëm nañ bu baax ñi fi toog itam ñépp nee na sunu rakk yi ñi ànd ak yéen ñii ànd ak yéen guddeeg bëccëg ñun ñii nga xamante ni ñoo kàddu gi mboolem ñu fi teew tey ay explicateur rek sëriñ bi nee na mboolem cantu explicateur yi mi ngi jël cant gi di ko teg ci loxol alaaji Seex Faar mu baax mii nga xamante ni mooy seen kilifa yéen explicateur yi mi ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant te di leen ñaanal yàlla yàlla yàlla dafa leen jàmm nee na muy ko baax moom alaaji Seex Faar sëriñ mu niiru wax na ko nee baayam salaatul fatiha lañ ko joxe. ca Faas na kon loolu rek. doy na sëkk doy na sëkk. ñu ngi koy gërëm bu baax. di ko sant bu baax. di ko ñaanal yàlla. yàlla yàlla yàppale ko. sëriñ bi ne kàddu yooyu daal lañ ñëwoon nañ ko yëkkati. di sant ñëpp di sant ñëpp. di gërëm ñëpp. am na sëñ bu njëgeen mii nu fekk si fii. sawar na ci fekk si ko bu baax. nee sawar ci fekk si ko bu baax. ndax ndax. suñu soxna la. suñu soxna la. waaye suñu xarit xarit la. baax rek lañ xam ci moom itam. waaye nee Adja Seynabou mi ngi leen di seereel ni diirub bi ko xamee lu baax rek lanu xam ci moom. dama doon wax léegi ci fañ doon maye. Serigne Bassirou nee lam doon wax léegi ca saal ban doon maye. ci ci ci sëriñ mu néew. ca kanamu Seex Mamadul Munul Njëgën. man leen moom jikko ju rafet lañ xam ti moom moom soxna Seynabou. nee mu yëkkati foofa kàddu mi ngi seere ni ba nu xamee Adja Seynabou ba léegi jikko ju rafet rek lañu xam ci Adja Seynabou Njëgën. waaw nit nag. nee na nag. jikko rek jikko ju rafet lañ ko mën a jàpp nee na nit nag lu man di xew ci àdduna jikko ju rafet rek lees ko mën a jàppe ndax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu borom taggu ko ci lenn ci lu jikkoom ju rafet ah suñu borom day li mu wax ci moom bari na waaye taggewu ko lenn lu dul jikko ju rafet rek wa innaka la ala xuluqil azim kon kon kon loolu doy na kon loolu doy na seere ne kon leena loolu rek nañuy seereel ne doy na sëkk seere doy na seereel nit ku baax doy na seereel nit ku baax kon kon kon loolu laa leen di wax ci moom nee na kon sëriñ bi ne lool rek laf leen di wax ci moom waaw ñu ngi siyaare nag nee na ñu ngi siyaare tam sëriñ mu niirul bari di gën a yeesal siya sëriñ mu niiru njëgin ak mboolem famille bi yëpp ak mboolem famille maam alaaji mët njëgin yëpp siyaar sëñ Cheikh mii. nee na di dellu siyaar sëñ sëñ Cheikh euh, Cheikh Fadel Ndiéguène mii toog ci wetam te yëkkati kàddu léegi ba daaneel ko. ak mboolem waa bi yëpp. ak mboolem waa bi yëpp. Ah, di wax ne. nee na di wax ni. Ah, dañ ñoo yabal. dañ ñoo yabal. waaye fekk na ñu am ci yéene. ak ak ak ak waaye nee na bi ñu koy yabal nee na fekk na booba yabale gi mu am ci yéene lool waaye nag ama ëmbaale ci yiw woo xamante ni rek mooy yéene joo xamante ni da cee boole ànd ak mbégte ak xol bu sedd. waaw kay di sant soxna Seyna bu baax tam. na di sant soxna Seyna bu baax tam di ñaan nag nee na di ñaan nag. sëy bii bokk ci sëy yi gën a barkeel. say bii yaan na ko boole ca sëy yi gën a barkeel. ñu ngi koy ñaan baax nee na ñu ngi koy ñaan bu baax baax am nañ ci yaakaar nag te am ci yaakaar nag. ndax li sëñ Cheikh Fadel wax léegi. nee na li Cheikh Fadel Ndiéguène wax léegi. waaw ku demoon ca saal ba. ko képp koo xamante ni yàlla dogal na teewoon nga tey ca saal ba. Ah, mm, am mbooloo nga fa. am mbooloo nga fa tey. ay kilifa diine yu bare nga fa. ay kilifa diine yu bare nga fa woon tey. te ci nekk. te képp ku ca nekk. la ko yëkkati. la ko yëkkati. yéene ju rëy la. yéene ju rëy la. ak ak ak taxawaay bu rafet. ak taxawaay bu rafet rek. ndax jëmmam ji ji. yàlla na yàlla bàyyi yàlla yàlla bàyyi ko fi. yàlla yàlla barkeel sëy yàlla yàlla barkeel sëy bi. bokk ci sëy yi gën a barkeel. nee na bokk ci sëy yi a barkeel mbàkk. nee na kon nag jëf. balay si ñu ñëpp ñu tàllal loxo yi parce que aajo yi ñaanal ko sëriñ bi sa borom delloo ko ci jàmm ñaanal sëriñ Muntaxa mu fi lool te ànd ak wér bi ci barke mu yàgg fi te wér lool yàgg taxawal lislaam way juróom maam alxaaji mun jigéen yàlla na yàgg ta sax njegéen maam as ak i rakkam amin amin amin amin jigéen amin amin ba